ex soxna ba Diop ISEG bi di Aïssatou Seydi nee nañu daal dina ñuy xëy tey ci ji fukki fan ak benn ci weeru janvier teg ko loxo gannaaw ba mu bañee déféré convocation bu ñu ko notifier semaine bële ñu génn ay éléments wu brigade de recherche de la gendarmerie nag ñu ko teg loxo ngir mbirum immeuble Sacré-Cœur bu muy xëccoo ak Mamadou Diop bu ISEG gannaaw ba ko ku nekk di waxee ni moo ko moom ci bile affaire nag Aïssatou Seydi mu nekk ci tànku tàggoo ak Mamadou Diop ISEC dafa initié woon benn procédure ca tribunal des référés bu ko jokkoon dëgg ci ab décision bu ñu jël ajjuma bi ñu génn àttekat yi dañoo joxe ndigal ngir ñu génnee Mamadou Diop famille yam ak société de gardiennage bu ñuy wax Ninki Pro bu yor kaaraange immeuble ba Diop sax ba mu génnee kaso xamle woon na ni procédure bu nekk en cours la te dañoo war a xam ni ñetti procédure la di en appel en annulation ak beneen bu ñu tijji gendarmerie bu leen teewlu moom moomee Diop ISEG waxoon na tamit ne juróom-ñaari chèque fukki million ci suñuy koppar la fayee woon kër googee nekk Sacré-Cœur 3 laata mu doon xamle ni ba mu nekkee ci kasu gi laay satu Diop Seydi tàmbalee di dox ay jéego ngir moomoo kër googee ndax xamul woon ne moom a Diop dina génn ci kaso gi si noonu mu ne sax ba ñu xamalee ay satu Seydi ne dañu koy bàyyi la gaawantu xotti chèque yooyee complot ak borom kër ga teg ko dil ca gannaawam laata muy leeral ni ISEG moo génnee téeméer ak fukki million ci suñuy koppar ngir kër gi nga xamante ne ni ñoo ngi ko fixé ci njëgu téeméer ak ñeenti fukki million ci suñuy koppar te ci kanamu enquêteurs yi nee na Aïssatou Seydi xam na ni kër googe ay chèque ISEG lañu ñu ko jëndee ba tey jub ne moom ak Aïssatou Seydi ñu ngi bokk immeuble bi boobee ndax ay mi ngeek néegam ci biir kër ga ba tax na ndigal joxe valable ndaxte ci famille jëkkër ak jabar yëpp kenn mënu ci génnee moromam fekk ñoo ngi ci buumu sëy dañuy toppandi nag xibaar bile ba xam ana fan la Mamadou Diop Iseg ak Aïssatou Diop Seydi di mujje ak mbirum immeuble boobee ca Sacré-Cœur 3